sëriñ bi noo ngi siyaare bu baax di leen jottali nuyoo bu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Cheikh Mouhamadoul Mountakha xam gim xam mbir mi ni yitteele ak ni koy ko yitteele te ba ko mënee moo daan ñëwul boppam te garab jëmbat garab bu njëkk gi ba mu xamee ni mu toll la yónni ci yow ci yónnent ba rek ci nga njëkkee dafay yitte ju rëy bu kawe ndax boobu guddi na lool te ba nga yégee ne sëriñ bi yónni na ma da ne naa ñëw ma ñëw fekk la foo xam ne bàyyi sëñ Muntaxa xel ak sa pastéef ak sa yitte moo tax ma fekk la foofa ndax booba guddi na te yëfee jaxasoo météo na muy taw ak lépp waaye bàyyi koo bàyyi xel sëñ Muntaxa moo tax nga woo ma sa biir néeg ba ma la jot leen ndigal li nga wane mbégte moo ci am ci sëriñ Muntaxa mu lay liggéeyloo ak ma la wax ne taxawal ma fa loolu rëy lool ci yow te loolu nga jëfe ko tey waaye yónnent ba sëñ bi dafa maa waxoon ne naa wax sëñ Abibu ne ko bu ko manoon mooy ñëwal boppam def ko nam ko daan defee bi mu ko ñëwut bi mu ko mënut ma wax sëñ Abibu ne ko sëñ bi yónni na ma ci yow ngir nga ñëw taxawal ko sëñ Abibu lool rëy ci moom lool rafet ci moom lool mu bànneexoo ko lool loolu nga jëfewaat ko tey bàyyi lépp ak sa tàngaay bi ak sa yitte ak sa xat ànd ak sa rakk sëriñ Aliou ngeen ñëw teewal bi sëriñ Muntaxa fekk bi sëñ Abibu ngeen taxawal ko bis bi kon sëriñ Mountakha mi ngi lay sant di sant bokki taalibe yëpp di sant directeur BID ndax yàgg naa taxaw ànd ak moom mbir mii ànd yàgg naa moom liggéey bi yàgg naa ànd ak moom taxawu dëkk bi ci wàllu garab te sëriñ taxa wàllu garab ñor ko lool ba ca toolam ba ca mbul lu mu cee def BID mooy ñëw def ko kon loolu nag bu ñu amee bokki taalibe yëpp daje fi Touba ca kanam jiitu nga bàyyi lépp ñëw taxaw ak tàngaay beeg coono bi taxaw bi sëriñ Mountakha danañ xamal sëriñ Mountakha ne ko lam bëggoon lépp defal nga ko ko dana jot na nag cantu sëñ Muntaxa waaye dana jot la sa taxawaay sëriñ Muntaxa yàgg sëriñ Abibu sëñ Muntaxa mi ngi sant bokki taalib yëpp di gërëm ñëpp di ñaan lépp lu ñu song ànd ko sëriñ Touba taje <clears throat> jeeg mbirum mbégum sëriñ Touba ak tawfeexi sëriñ Touba sëriñ Abibu mu ngi jottali ñu jottali cantuk Omar Ba mi nga xam ne moo yor agence bi te ak Ablaye Sow mi nga xam ne moo yore grande muraille de. chambre de commerce la. de commerce waaye dafa yore grande muraille verte. taxaw ci bu rafet nekk ci suñu wet. loolu yëpp ñu Abibu te jant boobu dinañ ko yottal sëñ Mountakha incha